dalee nag jàmm ci leeral ci leeral point net tey jii ñu ngi daal ci xëtam gu njëkk naka suba ki nga xamante moom mooy Ousmane Sonko ci lay daal di wuy si rek daal ne moom ak Adji Sarr mi séq nañ ka naka noona ñuy daal di xamle ñu gën a bari nañ ca waaye moom du ci wéet ndax dana am douze avocats yi nga xamante ne danañ ko daal di teewee ca loola ba tax na itamit ñu ci gën a bari ci ay partisans mi tamit pare nañ ngir gunge ko waaye li nga xamante ne rek daal mooy appel au calme bi mu daal di woote ba tax na ki nga xamante ne moom mooy Papa Ali Sow moom kat daal li mu daal di xamle muy bi Ousmane Sonko daal bu fekkee ne dem na wuy si naka suba rek danañ ko daal di dóor mandat de dépôt ndax loolu mënu cee mucc ndax bu kenn fàtte ne am na quatorze personnes yoo xamante ne rek daal daal nañ ci faatu waaye tamit ay commerce yi nga xamante ne saccagé nañ leen ci itamit sénégalais yi xam nañ bu baax a baax ne Ousmane Sonko mi kat Adji Sarr daf ko daal di jiiñ ab viol maanaam répétitive ci li nga xamante ne rek daal du benn yoon naka noona ñu bari itamit di àddu ca loola ki nga xamante ne moom mooy Malick Gakou moom moom li muy daal di def rek daal muy indi soutien gannaawam ci ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko ba noppi tamit ne ko dana daal di jàll rek daal ki nga xamante ne itamit mooy Aliou Badara Ndoye moom it muy fësal soutien am ci li nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko ba noppi tamit di tàkkale ki nga xamante ne moom mooy Macky Sall ñu daal di xamle Déthié Fall kat moom dafa daal di suspendre bépp tournéem rek ngir ñëwee teewee li nga xamante ne moom mooy procès bile ngir rek daal mu mën koo fekkee naka noonu ñuy daal di xamle police moom fu mu ne nii mu ngi ci alerte maximale foo mën a génn ci biir ndakaaru di nga gis rek daal ay gendarme ci rond point kay ni ñu daal di xamle Cité Keur Gorgui fu mu ne nii comme tambo lay doon ndax ñu gara bari itamit ña nga daal fa takk dari ñu ngi daal di kur ci réew mi le waaye tamit ñu daal di xamle du ñoom kese ñoo nekk alerte maximale waa sapeur pompier itamit ñoom it pare nañ temm ngir rek daal taxawu ni ni ñu daal di xamle procès gi ni mel ñi naan dana am ay émeute ñeneen ñi naan dara tu ci daal di am ndax Sonko kat daal jàmm gi mu daal di woote appel au calme ñu gën a bari itamit rafetlu ko aare ni rek daal yan mooy nekk rek li nga xamante ne moom mooy réaction partisan yi naka suba rek ca prochaine gilee ba tey rek daal ci xëtëb ko jëkk ci leexal point ñu daal de cocaïne yi nga xamante ne rek daal douane saisir na ko rek daal fële ca Kidira ñuy daal di xamle ñoom kat ab liggéey gu mucc ayib lañ daal di def naka noonu ñuy daal di xamle ki nga xamante ne moom mooy patron convoyeur boobu nga xamante ne daanaka 300 kilogrammes de cocaïne bi nga xamante ne mu yàmbaa gilee gannaaw rek daal giñ ko daal di jàppee fële ca Kidira noon nag daal li mu doon def muy di jël ay oto yu màgget maanaam ay camions yu màgget ngir daal ñu transporter drogue dialogam bile diggante Sénégal ak Mali naka noona ñuy daal di xamle douane kat daal gannaaw gi mu daal di gisee camion yi ni mel daal dina def premier contrôle ba waaye gisuñu dara waaye ñoom ci seen bopp ci seen xarañtaange xam nañ ni lii kat nga ca ba tax na itamit ñuy daal di continuer seeni xool bu baax a baax ba tax na ñu xam ne ki nga xamante ne rek daal moom mooy convoyeur googa gannaaw gi mu daal di xamee ne camion yi kat daal naa mën na am fuité ci ay camion frigorifique la ko daal di def buñ sukkandikoo ci l'observateur naka noona ñu daal di le ay fouille bu approfondi yi nga xamante ne rek daal douane amal na ko ba tax na rek daal gi ñu daal di suspect diggante siège chauffeur beeg ca gannaaw gannaaw gi ñu daal di xoolee bu baax a baax fekk nañ fa rek daal ay yàmbaa gu mucc ayib naka noona 300 kilos yamba un total ba noppi tamit 300 yëpp bu nekk nekk ci 300 paquet bu nekk rek 1 kilo la ñu daal di xamle valeur gi ñu daal di estimer ci loola maanaam ñu xayma ko ci alal ci yamba gi nga xamante ne gis nañ ko ci camion boobu mën nañ ko xayma ci 24 milliards ci suñu koppax mu nekk lu jéggi dayo lool ba tax na liggéey gu mucc ayib gi nga xamante ne douane am na ko ba noppi tamit saisir ni ni mel fële ca Kidira ñu daal di xamle dañ daal di jëree ni ni mel maanaam drogue googa yamba daal di ko jébbal gouvernement gi ba tey rek daal ci xët bu njëkk ci leeral point net ñu daal di addu ci ab mbir mi nga xamante ne fu mu nii mu ngi lëmbee àdduna muy mbirub homme choc gi mel muy groupe Facebook gi nga xamante ne artistes yi wala sax les influenceurs yi nga xamante ne xam nañ leen bu baax a baax ci réew mi le ñoom ñoo ko daal di tijji lii ko waral ca loola wala liñ ci daal di jublu muy di yàq deru xale yi jigéen naka noona diggante tëdd naag diw ak ni mel diggante woy laago yi ñu am benn tànk wala sax ay puune ak ni ni mel defuñu dara lépp loo xamante rek daal ñu ngi koy daal di yàq xale jigéen ñi le ñu ngi koy daal di def ci groupe googa naka noona tudd ci ay influenceurs yu nga ne xam nañ leen bu baax a baax wala sax daal ñoo xamante ne ñoom ci seen bopp dañ leen di bari di dégg ci seen i kàddu mu nekk nag lu réseau siggil jigéen ñaaw lu bu baax a baax ndax ñoom nee nañ ni ni daal duñ ko daal di seetlu ba tax na ab plainte rek danañ ko daal di doxal képp koo xamante ne bokk nga ci groupe googa woo ñu daal di xamle ñoom ñi kat daal leneen defuñu ko lu dul rek jigéen yéen ñi nga xamante ne mu ngi fii ci Sénégal amul dara liñ ci nekkee lu dul aborder la wala def la ay demande yu bari ko ci accepté amul leneen loo xamante muy arrière pensée ga lu dul rek daal tëddee la wala sax daal yàq sa jël ay photo di ko dugal ak ni muy nekk groupe bu restreint boo xamante ne ñoom ci seen bopp xamal nañ ko waaye ay capture d'écran ak ni ni mel yenn discussion yi nga xamante ne daanaka neexute sax wax ci ab gémmiñ la ñuy daal di gis ñu daal di xam le ni ni mel kat ñaawlu na bu baax a baax te bu yoon kat dana ci am yoon leen daal di gis fum ne nii mu lëmbee bu baax a baax a baax a baax réseaux sociaux yi muy rek daal homme choc gi nga xamante ne ñu gën bari itamit wax nañ ca naka noona indi kat daal mer ba futtu lañ daal di def ci loola ñuy xaarandi rek dossier gile fan lay daal di mujj ndax danañ ko àtte wala itamit ñi nga xamante ne influenceur lañ la ñuy wax ne fii ci mim réew lañ daal di nekk ndax danañ daal di wuy si walla ndax plainte bi dana daal di amandi walla ñu ngi xaarandi yeneen xibaar yu daal di rocca loola ba tey rek daal ci xëtëb gu njëkk ci leeral point ñuy daal di àddu ci tiis ak naxar gi nga xamante ne ni rek daal tegu na suñu ndodd di génn bu àdduna Basiiru Jaxate mi nga xamante ne muy Bas Jaxate mi ñu gën a xamee ca loola mu nekkoon rek daal artiste bi ñu daal di xam bu baax a baax itam artist bu nduroo ak ñu bari ndax moom mii nga xamante ne moom mooy artist bi di Bassirou Diakhaté gannaaw rek daal gi ñu daal di xamee ab brillante carrière gi mu daal di am rek daal ci théâtre gi ni mel waaye tamit oyof tàngeem itamit ne xareewam saa su ne kaf ak ree ngay daal di gis ci kanamam gile daal di xam ne rek daal faatu na naka tey jii ci 4 heures du matin ñu daal di xam ne rek daal ca l'hôpital la daal di faatu gannaaw rek daal biñ ko daal di hospitalisé mu am ay fan ci ginnaaw dong ñu daal di xamle moom mi kat daal ci daara la daal di jàll naka noona ñuy daal di xamle muy école coranique gi mu daal di jàll parcours am mu def plus de quarante ans ci présence scène artistique sénégalaise bi ñu daal di xamle moom mi kat daal ci boppam nekk na ci artistes yu ñuy gën a tudd fii ci mim réew ci mbirub théâtre ak ni ni mel ndax na ca bu baax a baax ca loola à 66 ans Basirou Diakhaté ci turam dëgg ca la daal di génne àdduna waaye ñuy daal di xamle moom mi kat dal bàyyi na ci ginnaawam ab njaboot waaye tamit ab tiis ak naqar ci askanu Sénégal yëpp gannaaw ay fàttaliku yu am solo yi nga xamante ne mën nañ koo cee am ci moom ba tax na rek daal leeral itamit amoon na yenn parcours yi mu daxaloon ci moom fu mu ne nii rek daal liñ koy daal di ñaanal muy jàmm fi mu daal di nekk fi mu nekk yàlla na ko gënal fi mu daal di jóge yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana itamit mu daal di noppalu ci jàmm leeral di daal di jàllale njaalam ci famille yoom ak ay njegeñaalem yépp te mu nekk lu gën ci moom